xam ni moom moo di Birame Souleye nekk numéro 2 bu Pastef topp ci Ousmane Sonko yëkkate woon ay kàddu jëmale ko ci le président Macky Sall jamono dañuy yóbbu Birame Souleye Diop ma ngi fay fekk ji Hannibal Djim ba di kaas na nga xam ni noonee lañ koy traité ca biir prison ba DJ Awadi yëkkate ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko mu ne mooy problème bi waaye itam mooy solution bi faw mu bokk ci élection présidentielle yaatum 2024 a xool naka lay def ba organiser élection yoo xam ne ñëpp a ci daal di bokk ca jamono jooju di DJ Awadi di wax Ousmane Sonko ma ngay naqarlu ñetti téeméeri ndaw yi nga xam ne dañ ne dañoo daal di réer ci géej gi kenn xamul fu ñu daal di nekk mu daal di ci nag joxañ baaraamu tuuma président Macky Sall ne lépp moom moo ko waral ci fukki at ak ñaar yiñ ko dénk réewum Sénégal ba tey ñi ngi jooy jafe-jafe yi nga xam ne Abdoulaye Wade moom la fi bàyyi woon bi mu fi jógee tey ci loolu Ousmane Sonko ne ndaw ñi bu kenn daw na ñëpp toog daal di xeex pour que réewum Sénégal yi fii daal di am ñu daal di koy soppi ba naataange gi ñuy uti bitim réew daal di fii mën a am jamono jooju ligue sénégalaise des droits de l'homme mu ngi rafetlu taxawaay bu président Macky Sall ñeel mbirum troisième mandat waaye ma ngi koy woo itam ci mu daal di bàyyi xel bu baax a baax que ni daa war a organiser élection yoo xam ni ñëpp dañ ci daal di bokk leneen lu Ousmane Sonko bokkoon mooy sondage bi nga xam ni le quotidien daf ko daal di fësal wane ci ne Ousmane Sonko mën naa raw gaay yi ca bu ñu 2024 ndax ci plateforme bi nga xam ne moom lañ jëppee suñu sondage Ousmane Sonko téeméer bu ñu jël rek am na ci lu ëpp juróom fukk leneen lu fes lool ci semaine bi ñu weesu muy rumeur bi nga xam ne jugoon na ñeel Cheikh Bara Ndiaye nekk chroniqueur ca Walf TV ñu bëri doon wax ne daa am liberté provisoire fekk ne mbir mu ni mel fake news la maanaam xibaar bu dul dëgg li nga xam ne nag mooy dëgg mooy plante ba nga xam ne waa France jaaree ko ci ministère des affaires étrangères teg nañ ko plainte boo xam ni moom lañ ko daal di jagleel ñoom nag liñ koy toppee mooy mbirum CPI bi nga xam ni moom daf koo tàmbali bañ ne daa am ay doomi France yoo xam ni moom Juan Branco daf leen daal di mettre en danger ci jamono jooju ki nga xam ni moo di Guy Marius Sagna ma ngay tontonte ak le président Macky Sall ndax ci benn ab ndaje boo xam ni l'observateur daf ko fësaloon ne ca palais de la République président Macky Sall da wax naan mbirum investiture ñu war def le 15 juillet provocation la kii di ne président Macky Sall yaa dëkk ci provocation ndax gis nañ saa bi nga xam ne yaa ngi koy am ci sa diggante ak Ousmane Sonko jafe-jafe yi muy dund bés bu yàlla sàkk rek mën na koo dal di firndeel waaye jafe-jafe yooyu coalition Benno Bokk Yaakaar génn ci benn yoon ndax nag depuis bi président Macky Sall waxee ne du def ñetteelu mandat bëri na ci ñoo xam ne tàmbali nañ di lem seeni ay bagage ba ci Aminata Assome Diatta wan na ginnaaw boobu lépp coalition nee sax dàqul bokk ci élection yi wala mu am kenn koo koo xam ni bu taxawee teg lu leer dina ko daal di jàppale. jàppalewul benn yoon Pastef les patriotes moo di gouverneur bu Dakar daal di interdire bépp xeetu manifestation boo xam ni ñoom daal di woon nañ koy programmer le 15 bi ñu génn. gouverneur ni Ousmane Sonko daa am ay kadd yu mu yëkkati woon yoo xam ni mën naa indi jaxasoo ci réewum Sénégal moo waral activité yi Pastef programmé woon benn du ci daal di am. keneen ku nekk ci administration bu Sénégal koo xam ne itam fësal na boppam ci semaine bi ñu génn muy procureur de la république daa daal di génnee li nga xam ni moo di mandat d'arrêt international ca doomu France ba nga xam ni moo di Juan Branco avocat bu Ousmane Sonko muy ñaareelu mbir moo xam ni ñëw na tegu ci kawam gannaaw ba ko am réewam daal di porter plainte ci jamono jooju nag Idrissa Seck waxtaan ba mu seqoon ak waa Jeune Afrique turu Ousmane Sonko jot na ko faa tudd ndax nee na moom moomee daa war a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 dàqul sax mbirum amnistie bu dee mën nañ ko utiliser ba moom mu mën a bokk ci yooyu la jongante teewul nag roof na ci aw galgal ne lépp loo xam ni décision de justice la dañ war di ko respecté ci suñu am réew di Sénégal jamono jooju nag waa PASTEF ñi ngi doon waajal lu ñeel seen investiture candidat Ousmane Sonko naka noonu ca la génn def ab déclaration wax ak képp kuy sénégalais te xam le ne moom Ousmane Sonko ba tey jilee dara mënu koo tere nekk candidat ci élection présidentielle yu atum 2024 dikkaat ci ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne aw njabootam mi ngi koy dal di dund ñëw itam suuf te xam ne investiture bi tôt ou tard mën nañ koo daal di def bu ñu topp ñi nga xam ni lenn la ñuy séntu ci ñun muy ay jafe-jafe daal di am bu ko defee daal di koy teg ci suñu aw ndold ba tax na Ousmane Sonko ca noonee la daal di digal képp kuy patriote ak kuy sénégalais mu daal di dem ci li ñuy woowee concert de casserole la ngir dal di naqarlu lépp loo xam ni am na ci réewum Sénégal ak injustice bi nga xam ni jàpp na ne moom la ko président Macky Sall di teg rawatina bëgg koo xañ mu nekk candidat ci élection présidentielle yu atum 2024 lii mooy li nga xam ni moo gën a fës ci semaine bi ñu génn ñi ci gën a fës nag di président Macky Sall Juan Branco ak Ousmane Sonko AGT News